liggéeykat yi ci wàllu yoon SYTJUST fas yéene amal gréew beneen li ko dalee tey gréewoob ñetti fan gannaaw waxtaan wi démb seen digg ak ministère justice bi nu bootu euh, jurul lu bari ñeer seeni tawat euh, tuumay doomu colonel Khadafi jëm ci Abdoulaye Wade fukk ñetti milliards yu ko réewum Qatar baaxe ngir doom ja Karim Wade euh, waa Qatar diggéey leeral ci mbir moomee bëccëgu tey jile international socialiste rafetlu askanu Sénégal ak nanu taxawee keroog lankal Abdoulaye Wade ticket présidentiel gi Eh, ñu ngi ko xamle ci seenam ndaje ci Athènes eh, jamono yu banque atlantique ak fonds de soutien à l'énergie eh, taxawoo ministère bi ñu denk énergie Sénégal fanweer ak ñeenti milliards ngir mu daal di fay bori lekk gëstu tey bi ñu ngi ko jagleel dënnu yeeg seen i musiba at mucca ci askan wi fu ci mel ni Sédhiou donte mbuur moom macha allah ñaar fukki at a ngi nemmeeku wu fa jëye dënnu jamono yi nawet Abdoulaye Diop ci machine bi. Assane waa SYTJUST di wéyal seen gréew ñetti fan yeneen li ko dalee tey jile démb lañ doon gisee ak ministre de la justice Cheikh Tidiane Sy eh, jurul lu bari ci ñoom ñaari poñ fa la waxtaan yi teqataloo porte parole lu SYTJUST maître Pape Sidi Lo ak Ndate Diop. liñ ci mën a jëlee mooy convoqué nañ benn commission technique maanaam benn commission boo xam ne mooy saytu affaire revendication SYTJUST naa ne ndax mënta ne commission boobu lundi lay réunir lundi à 16h ci ministère fonction publique pour wax ñu ndax gouvernement bi dina mën wala du mën wax laaj. loolu moo moo fa judd li nga xam ne waxtaan nañ ko fa tamit te antuwul mooy li nga xam ne mooy tag yi nga xam ne dagg nañu ko payero nit ñi te ba tey garde soo Cheikh Tidiane si waxul ndax dinañ delloo xaalis bi wala dañ arrêté dagg yi nga xam ne ñi ngi koy dagg li muy def mooy dégg naa wax ji dinaa xool nu ma koy toppatooye loolu du yi nga xam ne di leen tàggat ak agent d'administration pénitentiaire yi fa nga xam ne mooy CFJ pour nee pour ñu remplacer greffier yi boo déggisee loolu ñu koy ñaxtu du pour bañ ko ñu remplacer justice boo xam ne magistrat bi day toog gendarme toog ci wetam loolu du justice loolu tax waaw wala loolu te tamit euh, ñun dañu ñëw yónni ay mandataire la dañuy continuer grève mardi mercredi jeudi ba négociation yi commission technique def jeex wala dañuy continuer mouvement bi ba négocier am si di loobu waa sud juste seen ndaje démb ak ministère de la justice ndaje mu euh, ci càkkuteefu ordre des avocats bu Sénégal ministère de la justice leeral ni waxtaan musuta dakk yéene baa ngi fi ngir faj euh, lii di tawati yooye liggéeykat daa fekk ni ndara Darou Sotti eh, ki yore wàllu jokko bu ministère de la justice Marcel Mendy. gardeso des bañ waxtaan ak surgis contrairement à ni ko nit ñi faral di gisee ndaxte depuis bi mu njëkkee ñëw ministère de la justice 2005 ba 2008 man fekkee naa ko ay yooni yoon toog naag bureau exécutif surgis jamono yooyu Boucounta Mendy moo ko jiite woon yaa ngi dégg bi mu dellu see itam defe naa ni ci ñi mu njëkk a recevoir waa surgis ci la ñu bokk waxuma sax audience yi mu accordel waa surgis bureau bi maanaam mais jëwriñu surgis Ousmane Diagne moomu le Cheikh Tidiane Sy dalal na ko ay yooni yoon bu loolu weesoo Pape Oumar Sakho muy président premier président de la cour suprême Demba Kandji ak yeneen jëwriñ dalal nañu waa surgis loolu yëpp pour seet naka la ñoo safara problème yi ñu lal ci table bi loolu dama ko bëggoon fàttali rek pour firndeel ni ñàkk euh, waxtaan mënuñu ko teg ci ndoddu ministre de la justice waxtaan boo gis dafa am yoon kenn du tëb tëb rek ne bërët ne yaa ngi faj tel jàngoro déedéet il faut que nga créer conditions yi tey jii nag mën naa jàpp ni dañ doon jéem a fexe nu ñu créer condition waxtaan boo xam ne bii dina mën a jur dara. yore wàllu jokkoo jëwriñ ji ñu dénk yoon lekk dina mën a fay borom toll ci fanweer ak ñeenti milliards euh, la ko maye euh, di commencion bu dox diggante banque atlantique ak fonds de soutien à l'énergie euh, koppar yooyu di may kon ñoom lekk ñu fay bor yi nu warloo ak kër gii di UTOC toll ci ñaar fukk ak ñeenti milliards ak SAR fukk ci ay milliards. tuuma yu garaaw tukkee ci doomu Xaddafi jëm ci Abdoulaye Wade njiitu Sénégal Saïf al Islam ci waxtaan ak yéenekaay bi di fukk ak ñetti milliards ci réewum Qatar ngir doom ji Karim Wade journal bi d'Observateur xëy xamal ñu ne réewum Qatar diggée na indi leeral ci moomum mbir ba cëgu tey ji leneen ne xibaar ak RFM di ñaar téeméer ak fanweer ak juróomeelu anniversaire indépendance États-Unis ci kaw xew wi soxna Marcia Bernica bi leen fi toogal ci ne ci njeextalu mission war a ñibbi tàggatoog Sénégal waxtaan it fàttali li wund diggante bi Sénégal ak états uni bokk na ca bonne gouvernance di yorin bu sell waaye xeex ak guerre Georges Déthié Diop hymne national bu Sénégal ak bu états ñu koy woy ci kanamoo mbooloo bu takku ambassade u ci Ndakaaru di fête Independence Day bu mujj bi nga xamante Marcia Bernica mu ngi koy teewee ci senegal ah, ah lu daw yaram fi mu nekk nii sama yaram baa ngi daw dëgg la fête bi suñu fête bu mag la waaye noppi ma sax fi mu ne ngir dem ci fête bi dañu koy fête ci jamono joo xamante ne ji ñu bëri kon ñu ngi ko doon xaar muy li mandargaal ak liberté. madame Marcia Bernica di tàggu waaye dalal xel yi ca département d'état bi mu fa yéene doon li xew Sénégal dana wéy di doon yitteem. internet bi di xool magazine yi nga xam ne ña nga fay bind waaye te jaare ko ci sama xarit yu bari yi nga xam ne am naa ko fu ca mel ne ca Washington ak ca New York. loolee tax mu fàttali ci lan la coopération diggante Sénégal ak États-Unis sukkandiku. comme toujours ñu koy defee saa su nekk rek noonee la ñuy def ñun suñu bëgg-bëgg moo di jàppale askanu Sénégal jàppale gouvernement bu Sénégal loolee nag jaare ko ci lu dooleel démocratie bi koppar bu ñu yëkkati fu ñu ko dugal mu leer nañu ne la ko taxoon a jóg dugg na fa nga day gën a dooleel it wàllu institution yi gën a jàpp ci wàllu démocratie ba nga xamante ne ji ni ñu ko yaakaare dina ni mel. plus représentant bi ci discours am wax ci élection présidentielle yu 2012 madame Marcia Bernica ne woote bi war naa jaar yoon te warut am benn lënt-lënt te loolu mu ngi mën a jaar ci ab processus bi nga xamante ne dafa jaar yoon dem sax ba résultat élection ya. ñëpp respecté ka Georges Déthié Diop waa international ñoom la ñu rafetlu mooy mbañ gi askanu Sénégal wane keroog 23 juin bi ñu bëggee wote lu assemblée loi bu jëm ci falandoor président kay topp ci moom fii ci mim réew waa internationaliste rafetlu kon doxalinu askan wi keroog 23 euh, ci Athènes ci seen ndaje lañ ko xamle Ousmane Tanor Dieng bokk ci ñoom dal di ko xamle boobu xibaar ci ba muy jaar Paris Cheikh Sidou Sylla nga fa ngir RFM. ndaje international socialiste bi amoon Athènes fale ci Grèce rafetlu na nu sénégalais yi bañ accompagné pour projet de loi bi nar a indi ticket présidentiel jàll assemblée nationale le 23 juin passé. li ma wax mooy que ñoom euh, Sénégal bi ñu bëggoon Sénégal bi ñu xamoon mooy Sénégal bu 23 juin Sénégal bi nga xam ne dafay bañ. Sénégal bi nga xam ne dafay wane yoonu démocratie Sénégal bi nga xam ne dafay wane yoonu république ñu ne loolu loolu lañ xam ci Sénégal kon nag ñoom commencé woon nañ sax di xaddi yaakaar ne ah Sénégal daal fi mu ne moom Abdoulaye Wade yàq na ko yàq boo xam ne Sénégal yi ñi amatuñ bañatuñ ñemeetuñ mais léegi euh, ñoom gis nañ ne fi mu ne Sénégal boobu bi ñuy gis le 23 juin mooy mooy Sénégal bi leen neex mooy Sénégal bi leen bëgg ñu ñuy encouragé pour ñu continuer noonu parce que ñun suñu suñu suñu cër mooy wane yoon wi fi nga xam ne fi la Sénégal war a jaar. Ousmane Tanor Dieng wax na aussi ci mbirum candidature unique bu opposition nee na benn avancé na bu baax ci projet bi yaakaar na sax ni dinañu tànn seen candidat ci weeru septembre buy ñëw. Ousmane Tanor Dieng bi muy wax loolu nag mu ngi ànd ak assurance bu mag loolu nag moo bett journaliste yu bare bu doon jokk ak yéen fii ci Paris Cheikh Sidou Silla RFM. RFM juróom-ñetti waxtu tegal fukki minute. RFM rajo bi leen di xibaar saa su ne. ñu ubbi xët mi nu jagleel euh, nawet bi wàllu dënnu yi dënnu yeeg seen i jëy ak musiba ci askanu Sénégal nawet bu ca ne misaal gi ca Sédhiou foofee nag euh, urgence la di yitte kon ngir ñu baaxee askan way paratonnerre jumtukaay yooyu maye ñu sànni dënnu yi feneen baax yi compté. dënnu yi nu rey fii si diwaanu Sédhiou bëri loolu ndaxte ans moom jot na faatu at bu nekk nag dina am ay nit yoo xam ne dañuy gaañu ndax dañuy ndaxte boo fàttaliku sax si euh, at 2010 euh, euh, bi am na kenn koo xamante jot na faatu ci diwaanu Marsassoum nekk béykat boo ñëwee nag ci at 2009 bi am na kenn koo xamante ne moom dafa doon togg benn jigéen mu daal di faatu ci diwaanu Montagne Rouge at 2008 bi tam benn béykat ak doomam ñoom si jaarume la ñu faatu am na sax ay daw yoo xam xamante jot nañu faatu si terrain municipal bu Sédhiou loolu nag ci ay at rek loolu nag nekk loo xamante yenn population yi di ko ñaawlu. waaw malheureusement chaque année dañuy daal di constater ne foudre bi day def ay dégâts yu bëri euh, ci ay nit yuy gaañu. day def tamit ay dérangement ci wàllu téléphone bi ak internet bi. Euh, malheureusement chaque année dañuy dañuy wax autorité pour ñu jàppale population yi ñu wutal ay parafoot pour lu mel ni daal di fi jógee. mais ba tey nii defaguñ fi dara. ñenn ñi daal bu fekkee dañuy installé ay paratonnerre am na nag ay nit yoo xam ne ñoom lañ koy jox bàyyi yenn ñu koy ñaawlu ne loolu nag marginalisation la. bu buñ ko jëlee rek teg ko ci wetu kër ñi nga xam ne bon vraiment ñoom la ñu mën a woo wax ay autorité lañ. mais buñ ko fi defee bàyyi ñeneen ñi bon ñeneen ñi tamit c'est des citoyens ay nit ay lañ comme comme comme ñëpp. vraiment man li ma gënaloon ak li population bi yëpp bëgg ñu ko ñëpp. ñi ci àll beeg ñi ci ñi ñi ñi ñi dëkk ci ci ci catu dëkk beeg. population yi nag nekk tiit ak jaaxle xamatuñu fu ñuy jëm ñoom nag la ñu bëgg mooy nu mu gën a gaawee ñu installé ay paratonnerre eh, ba de nuit eh, bañ a def ay yàqu yàqu si région bi yëpp Bakary Konté Sédhiou rajo Futurs Médias. jërëjëf Bakary nawet bu ca ne nag yooyee dënu defi loraange Matam naam foofee am na fa sax programme bu fa nguur gi jógte ngir taxawal fay partenaire waaye nag ëmbul diwaan nga yëpp Ali Bandel. fii ci diwaanu Matam at bu jot ci ndorteelu nawet gi am na ay bakkan yuy root te dara waralu ko lu dul dënn yi daanu mbir mi nag mu ngi gën a taxarnaase ci diwaanu Dandemayo bi farak département bu Kanel maanaam ci booru Gangel ak environ jamono yi nag nga xam ni ñoo ngee dugg ci nawet gi li nga xam ni moo jëm ci wàllu partenaire am na sax naam waaye lim bi taxu koo demee noonu ndaxte kat partenaires yi fi nekk ci yenn édifice public yi lañ ko posé mu gën a sax ñeel dëkk yu mag yi bokk ci région de Matam ñu bi ak jamono yi gouverneur bu Matam. loolu nga wax léegi euh, yàgg na fii fii lañ ko fekk fii lañ koy bàyyi. Euh, lu tax euh, accident yi ñu bëri di ko yëg léegi rajo yi moo tax. maa ngi leen di ci félicité yenn journalistes yi. ndax mbir daan na xew Casamance. waa Matam duñ ko yëg. loolu moo tax ba dafay ba mu mel nii lu bees la mais lu fi am la. ñun ñi dëkk ci àll bi yàgg na ñu gis yu mel noonu. Euh, yu gën a garaaw saa ñuy gis léegi mais euh, jamono bi ma wax ak yow gouvernement def na jéego ci lu nga xam ne protéger population mooy installer ay paratonnerres programme bi Matam tam am na ci wàllam euh, am na antenne yu bëri yu nga xam ne ñu yore téléphone yi ñoo nañ ko am na ay jàkk ay juma yu bëri yu nga xam ne am nañ ko juma yu mag am na tam ay yeneen tabax yu nga xam ne nguur gi moo ko moom nga xam ne am nañ ko fii sama kër boo ñëwoon suba rek ma won la benn paratonnerre bu fa nekk mais euh, wax ne euh, daj na fépp déedéetu dajul fépp mais def nañ jéego te programme bi yemul fii day continuer bu fekkente ni nag mbokk baykat yi fu mu nekk nii ñu ngi kon wir wirdi ñaan yàlla ngir kon ndox baawaan askan wi moom ñu ngi dund kon njàqare ndaxte kat bu dul sax dënn yi wadd di lor doomi aadama yi ngelaw yi jiitu taw yi at bu jot day am ay njombe yi nga xam ne da koy teg ci kaw askan wi mu nekkoon seen naataango Ali Bandel diwaanu Mbour moom am na fa gën caa gàtt juróomi paratonnerre jumtukaay yooyu sànni dënnu yi feneen tax nag ñaar fukki at a ngi macha allah déggu na fa musiba ak jiya euh, ci jamonoy nawet ñeel dënnu yooyu Mamadou Diop. Mbour wuuteeg lool yeneen dëkk yi nga xam ne moom la ñu gën a nemmeeku ne amul lu ñuy wax paratonnerre fii ci biir dëkk bi kat nemmeeku nañ fi paratonnerre yoo xam ne taxawal nañ ko fii ci biir commune bi Samba Ñebbe Ba professeur de géographie moom ci quartier 11 novembre foofu la dëkk. waaw boo fi dee taax mag yi fi nekk yëpp bu ci nekk euh, am na lu koy aar euh, paratonnerre day sànni de nuit ci mel ni ay préfecture fu ci mel ni mairie agence Sonatel agence Sénélec bâtiment yu mag yëpp yi nga xam ne ay am na installation day am ay euh, matukaay yoo xam ne ku fay ji pour Samba Ñebe ba moom nag di fàttaliku njëye yi nga xam ne benn dënnu amaloon na ko fii ci biir diwaan bi booba ak léegi nag ëpp na ñaar fukki at benn yenukatu mool bu nekkoon fii ci domaine bi mu yenu woon benn kiwu euh, mu jëloon ci pam mbaxane bi mu soloon mu jëloon xaalis bi defoon ko ci bopp bi ay ay pasatu xaalis yu mu defoon ci bopp bi oto dafa daaneel pañe bi lakk mbax ne maag bopp yëpp waa yi daal daal di wàññeeku loolu maa ngi koy fàttaliku mais nag li ci ëpp solo mbuur moom mooy taax yu mag yi fi nekk moom tax na ñu ci bari bari daal dënn lu mu fi def du bari su fekkee ne gis nañ fi ay paratonnerre ci biir dëkk bi ñenn ci mburuwaay yi kat ba léegi dañoo am njàqare su fekkee ne nawet bi jot na rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk nappkat yi ndax ñoom daanaka nawet bi yëpp ci biir géej la leen di fekk moom Mamadou Diop doon leen ci jokkoog fii ci diwaanu Mbour ci turu rajo Futur Média jërëjëf Mamadou leneen ne ay jéye yu nuy dund jamonoy nawet mooy euh, rigol yi nga xamante dafa ubbiku ci mbedd yi euh, ca nit man caa surux muy njàqale dëgg ci askan wi reportage Mouhamed Ali Mouba ñu ngi ci kanam benn égout buy yóbbu ndox yu bon yi. sax yii nii war fii cinq yenn saa yi dana dem ay deux jours jours doo gis yenn saa yi bokk na ci ñiy dëkk ak égout yooyu égout yoo xamante ni amuñu benn couvercle loolu nekk danger. sax yenn saa yi daa gis ñoo xam ni ñi ko xamul mën nañu fi jaar guddi daanu ci biir. lu nekk lu nekk da ci am mais bu dee ñun di fi liggéey moom comme xam nañ ko ñun bu ñuy jéggi mën nañoo wiire na la quoi jaare ca jaar yenn saa yi gars yi fi dëkk dañ fi sotti ay mbalit mbalit bi ñun ñun ñii fi liggéey yenn saa yi ñoo koy dindi ci ci récolte bi pour bañ a fat ñi bari jàpp ni waa ONAS ñoo fàtte tegaat couvercle yi waaye ñeneen jàpp ni lu ko waral sàcc yi eh, ñooy yóbbu couvercle yooyu mun nañu wax di buuj maanaam am nga léegi ferraille dañu koy jaayum po partout ko couvercle yi dañu leen di jaay. ngir mucc ci loolu mu joxe ci xalaatam. ñu seetaat beneen système fu mu nekk nii boo ñëwee rek mun nga ko buddi rek yóbbu ñu seetaat beneen système bu bi nga xam ne bu ñu ko tegee duñu ko mun a diin. waaye balaa loolu musiba mun na dal saa su ne ñiy jéggi tali yi rawatina ci nawet bi. RFM wàllu sport ak Cheikh Tidiane Diagne maa ngi lay nuyu sëñ Cheikh maa ngi lay fay El Hadj Assane Gueye dañ koy door rek wàllu football ak ñaar fukkeelu bëccëg bu championnat national bu Ligue 1 ñu ko doon wéyal démb foofule ci stade Demba Diop euh, ñaari jongante diggante Jaraaf ak GFC waaye ñaari match yooyu yëpp dañoo match nul kenn dugalul sa morom dara euh, mu mel ni ki ñi nga xamante ñoo di waa Jaraaf ñoom ñoo si daal di perte ndax ñoom bu ñu gagné démb seen diggante ak GFC kon bokk euh, danañ ñëw ñaareel place ci bopp raw gàddu gi di waa union sportive de Ouakam waaye teewul ba tey ki nga xamante moo leen tàggat di Amadou Diop Boy Bandi jàpp ni daal ay jouram dañoo yàkkamti woon loolu ba tax loolu indi leen loraange googu ñu déglu ko. marche bu metti woon la tey pour ñun parce que xamoon nañ ko d'ailleurs moom la wax xale yi euh, balaa ñuy commencé dafay metti pour nga jógee si marche bu mel ni marche Ziguinchor bi pour confirmer mais boo xoolee tey équipe bu géejawaay bi dañu ñëw indi taxawaay bu baax ñun jàngatoon nañ ko xamoon nañ ñoom dañuy ñëw pour euh, wut seen point l'on si bien réussi parce que boo xoolee seen taxawaay bi jekk na mais euh, que manqué nañu tuuti rythme mais beneen bi aussi jéem nañu jéem nañu jéem nañu parce que poussé nañu donc au finish euh, match nul la mu ne dem donc euh, ñu ngi si sant suñu borom. Euh, kooku di Amadou Diop euh, Boy Bandi di entraîneur bu Jaraaf euh, bu Dakar gannaaw moom naataangoom bu Guédiawaye football club moom nag jàpp na match bi ku ci nekk mënoon na dugal ab but waaye teewul ba tey moom poñ bi nga xamante ne jëlee na ko ci déplacement bi mu ngi koy rafetlu ñu déglu Alassane Dia. ñëw en déplacement jouer ak Jaraaf def ak moom match nul je pense que match bu point boobu dina positif pour ñun. donc surtout que temps yi vraiment on est bien que xëy na nekkuñu ci kaw classement bi mais depuis trois journées wala quatre suma juumul daal. ont fait de bonnes choses sur le terrain malgré la jeunesse de l'équipe donc euh, bu ñu ñëwee tey am premier mi bu mel ni bi ñu am waroon cee mën a dugal but Jaraaf réagir en deuxième mi ñu fexe ba contrer leen également parce que calculé woon nañu loolu je pense au bout du compte euh, point bu positif la surtout que nag bi moo na am vraiment parce que du opportunité yi moom moo ñàkk de part d'autre. kooku di Alassane Dia di tàggat Guédiawaye amal sa ñaar fukkeel ak ñaareelu bëccëg ñu ngi ko doon wéyal euh, démb nag diggante olympique de Ngor la woon ak génération foot olympique de Ngor moo ko daan benn bal ci dara jamono gi nag génération foot féete ci place bu mujj ci wàllu classement bi jàppaleen biir boobu nag ko ko dugal pour olympique bu Ngor di Pape Biram Silla ba match bi amee juróom-ñaar fukki simili ak juróom ñu daal di waxtaanee wàllu handball ak wàccaay Jeux africains Maputo euh, di capitale bu Mozambique ci weeru septembre bi ñu dëgmal lay doon euh, jamono gi nag suñu gaynde handballeur yi ñoom ñu ngay tàggatu foofule ca diwaanu Ceskaay dañuy dem ba foofu fekk fa suñu ndaw bu ñu fa toogal di Cheikh Anta Diop. entraîneur nationale bu Sénégal bu handball lay daanaka nee na daal yitteem moom mooy jër première place bi ci wàllu jeu africain bu Maputo ba tax na ñu ngi fii ci diwaanu Thiès ci ab tàggat kii di Seydou Diouf nekk président fédération bi. nee nag xale yi jamono yi ñu ngi ci préparation bu baax góor ñi ñu ngi fii fukki fan ak juróom xale yi bés bu jot dinañ def ñetti séance néew gaa bëri ñu def ñaari séance di jët di préparé xam enjeu sportif bi ñu am kon wax fu dëgg yàlla li nga xam ne la ñuy sakku mooy autorité yi dégguñu Seydou fu dolli ci ne mi ngi sàkku ci kilifa yi ñu jàppale xale yi ndaxte ñu am ay détermination lañ laajuñu dara ñoom li leen yitteel moom mooy sol may équipe nationale ngir défendre seen réew. bi yàlla defee ñu jël tournoi zonal qualifié suñu xale yi. topp ko topp ñu affaire prime. li ñu leen jox ci prime tey rus nañ koo wax sax ñun en tant que responsable fédéral. ndax lu mel ni équipe nationale. nga ñëw jouer Jeux africains. sa yeneen mën naataangoo discipline jouer Jeux africains yow nga qualifié amoo prime lu dul deux cent euros muy cent trente mille francs CFA nga nekk professionnel bàyyi sa ñu ci bëri amoon ay problème ak seen club. sélectionneur national bi bi mu fi ñëwee toog fi 15 jours liggéey luñ ko fay même euro 2000 euros 1500 euros lañ leen fay. loolu mooy wane ne 1500 euros c' est 1 million. ci entraîneur boo xam ne day entraîner équipe professionnelle en France. ñaareelu xaaj bi ñu ngi koy amal beneen stage ñaar fukki fan ci weeru ut bii di ñëw. stadium Lat Dior bu Thiès Cheikh Anta Diop rajo Futur Média. Cheikh Anta jërëjëf El Hadj Assane foofu la ñuy daal di yemale wàllu tàggat yaram. jërëjëf eh, Cheikh Tidiane RFM juróom-ñetti waxtu tegal ñaar fukki minute ak benn. RFM gëstu bés bi. gëstu bi tey ci askan wi ñu nekk ci.